Mm. ba si ñuy waxtaane tey alaaji baay cheikh di suñu maam cheikhul xadim radiallahu taala anhu nga xam ne bu mas weer wi daan masaana toll fii day mel ni ka nga xamante ni dafa xaw a am la nga xamante ni neexu ko ndax barke ak yiw ak tuyaaba bi nga xamante ni moom moo di si nekk si weeru koor nga xam ne weeru koor mooy anniversaire u alquranul karim weeru koor si la sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam njëkk a gisee ak sayduna jibril alayhi salaam mu jox ko wax yu jox ko li nga xamante ne moom moo di alquranul karim waaye itam weeru koor si la yàlla subhanahu wa taala di tënk shayatin yëpp muy cheytaana yi waaye weeru koor si la yàlla subhanahu wa taala di ubbi buntu aljana yëpp tëj buntu safara yëpp kon weer wi dafa nekk weer wa nga xamante ni bu particulier la ndax bu ñu demee ba ñu jagleel ñu si Baye Cheikh benn guddi ba nga xamante nii taxawe ko moo gën nga jaamu yàlla lu ëpp juróom-ñett fukki ak ñett kon weer woowu nekk na weer wa nga xamante ni du weeru caaxaan ndax weer la wa nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala moo ko tànnal boppam jox ko kado muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba dig leen si sax li nga xamante ni moom moo di aljana dig na ñi nga xamante ni dañuy taxawee weeru koor gi ba mu jeex baay cheikh yàlla nee na lu doomu aadama lu jullit di def rek ay malaako laay délégué ñoo koy noté waaye nag koor man maa ko yoreel sama bopp man maa yor karne bi man maa koy notel sama bopp moo taxoon mu wax ne as sawmu lii wa ana ajzi bihi koor man maa koy notal sama bopp kon bu ñu bëggee am note yu baax il faut qu'on de très bons élèves pour suñu borom subhanahu wa man ñu notal de très bonnes notes Baye Cheikh yàlla ñu ko yàlla defal moo tax ku yebbu profité ci weeru koor gi ndax yu bëri suñu borom nas euh, ci euh, euh, diine ji weeru koor la ko nas mhm. yu bëri ci yu mag ñi nas weeru koor la ñu ko nas mhm. guddi àjjuma bi tey dafa tombe mhm. bërki démb waxtaane nañu ko tedd ki Cheikhul Khadim radiyallahu Euh, fas yéene euh, dem. Euh, mm-hmm. ci ku tedd ki waaye prétexte bi mooy. Mm-hmm. kii di Cheikhul Khadim. bi muy sos yoon wi. Mm-hmm. dafa tombé ak période yi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la woon. ci weeru koor. mooy wane encore valeur bi nga xam ni moo nekk ci weeru koor. donc tey ci guddi àjjuma bi ci télévision Futur Média. loolee la ñuy célébrer yaw saas. jërëjëf Baye Cheikh loolu day waneeti rek kéemtaanu suñu borom subhanahu wa ndax yàlla ku mu nar a yan rek il faut mu tegal la li nga xamante ni moom moo subhanahu wa tegal na ko suñu mag ñu baax ñi bokk na si suñu maam cheikhul xadim radiallahu taala anhu mooy mu jox ko ay ngëneel jox ko la nga xamante ni fa tabarakallahu ma sha allah tey jii nii yem na àddina waaye loolu li ñu siy jànge rek mooy am na loo xam ne si loxo suñu boroom subhanahu wa taala la tege moom moo koy jox ku ko soob moo tax yàlla ne inna al fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu dul fadlil azim yàlla nee ne ngëneel teranga nga si sama loxo la nekk man maay xool si samay jaam ku ma neex ma jox ko ku ma neex ma def ko lu ko neex moo taxoon yàlla subhanahu wa taala ku ma neex ma ko lu ma neex moo taxoon yàlla subhanahu wa taala waxoon ne wa rabbuka yaxluqu maa yashaau baay cheikh wa yaxtaaru yàlla nen may bind samay jaam waaye man maa si tànn ñi ma neex ma jox loon li nga xamante ni moom moo ma neex kon ki ñuy waxtaane tey fa tabarakallahu hasard amul hasard amul ndax ni mu bëggee woon weeru koor ak ni mu ko doon jaamoo yàlla ak ni mu si doon toppee borom bi subhaanahu wa taala lu mel nii rek la ko yàlla mën a fayee Baye Cheikh moo tax àddina yëpp di célébrer li ñuy célébrer tey comme tey guddi célébration la euh, mm-hmm. ànd leen ñu célébrer euh, ku tedd ki mm-hmm. ak euh, yoonam yu mu sos mm-hmm. ba ku ne ne ci